waaw lii nag ma koy waxaat ma koy waxaat bu baax askan wi bala maa ñëw ci bala maa ñëw ci ñoom Bougane ak ñoom Pape Djibril Fall ak ñoom Barthélémy Dias yooyu bala maa ñëw ci ñoom damay ñëw ci parti patriote yi di am lu ma leen leeral tuuti muy élection législative yi ñu dëngal bariwaan na ñoo xamante ne dañuy jàpp ne man diw laa dëkkal ci sama koñ ah kon man nag diw laay voteel waaye yow jàppoo ne président da ngaa voté loon président Diomaye fay mu gagné ndax xam nga ne boo voté lee diw mi nekk ci koñ bi te bokkul ci euh, bokkul ci euh, pouvoir bi ci opposition bi la bokk baa xam nga ne kon majorité doo ko am assemblée nationale te boobaa loi yi ñu bëgg a tëral ci biir réew mi liggéeyu liggéeyu rëy yi nga xamante ne naan loon ko te taxoon nga jug yow ci sa carte ne danaa ko voté président yow sa carte boobu nit la amul amul amatul njariñ nga teew da nga kaa ngir mu liggéey misaal mooy da nga dégg nit ñi naan la man ngaa mën ngaa voté mën ngaa voté diw président mais boo demee ba législatif mën ngaa voté voté diw parce que yéen a dëkkandoo yéen a lii te amul loolu loolu du dëgg du yoon ma lay ba tey ne la nit ki mënoo ko mënoo ko mënoo ko yóbbu ci assemblée national maam tey par exemple ñu ne président man naa bañ a am majorité assemblée nationale teewul loi yi muy bëgg day fay jàll normal non non loolu c'est impossible mënut a nekk parce que assemblée nationale président bi bu fa ëppalewul ay député maanaam ni ma la ko mën a misaale mu am fa cinquante député opposition bi am fi quatre-vingts député wala soixante cinq député ñoom ñoo am majorité bu fekkente ni dañoo indi ab loi ne loi bi kat damay def lii ak lii ak lii ak lii wala tey kat bëgg na maa defar nangam nangam nangam lañ ko yóbbu assemblée nationale ñu voté ko bu neexee opposition bi ñu lànk fa seen loxo ne du fi amee boo loolu noo koy liggéey doo ko liggéey parce que ñoom ñoo war a voté loolu yow nag dem nga foofu ñun lool du fi amee ah loolu nga bëggoon du fi man du mën a nekk kon yéen ñu yor seen i carte joxoon ko Bassirou Diomaye fay da ngeen koy jëlaat ngeen yóbbulaat ko Bassirou Diomaye fay ci seen coalition boobu di Pastef ndax loolu mooy li nga xamante ne moo di yoon yéen patriotes yi yéen moom loolu buñ dikkee ci kaw ki nga xamante ne moo di Bougane Gueye ak euh, Pape Djibril ak nga xamante ne mooy gone yooyu ñoom ñooñu ànd xam nga ñooñu li ma li ma li ma bëggaan ngeen xam ko mooy que ne ñooñu dama am yaakaar ci ne dañoo xamutul fu ñu jëm te képp koo xamante ne ci ñoom tàqalikoo nga ak sa bopp doo doo am waxuma la waxuma la waxuma la benn député waaye xaaju député sax doo am léegi nag ñoom li fekk nag ñoom ñu mën a am ñu mën a am ay nombre de députés yu xaw a yu xaw a tane tuuti ci assemblée nationale faaw ñoom ñu àndandoo faaw ñoom ñu booloo nekk benn ngir ñu mën a ngir ñu mën a am bu doon juróomi député cinq député sax ñu mën koo a assemblée nationale. booloo googu nag xol mooy booloo ndax est-ce que seen xol yi dinañ ànd pour ñu mën a booloo deet ndaxte koo xamante ne bii jàpp nga ne gis nga koo xamante ne jàpp nga ne moom moo moo mën a defar réew mi nga bàyyi ko fi dem ci leneen man jàpp naa ne. kon kooku boole da nga dem feneen nga noon booloo jàpp naa ne xol mooy booloo te lool du xol xol boobu du mën a du mën a booloo ak beneen xol kon euh, man jàpp naa ne ñee ci ay léeboon ak lu pen ci la nekk waaye jàpp naa ne patriote yi lenn ci patriote yi am na ñoo xamante ne ci léeboon ak i luppeen ci la nekk léeboon ak i luppeen nag mënta si nga teg président ba pare la si nationale ñëw nga dem voté keneen ne kii sama mbokk la wala kii sama dëkkandoo la wala kii sama nangam la déedéet ki nga fi président amagu fi cinq mois tegaat tegalaat kon ko sa carte votel ko mu am majorité assemblée nationale loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg